mbooloo mu bari dajaloo fi nga xamante ni moom moo di si Mali 1 foofu nag di fiefu ki nga xamante ni moom moo di du Djigo DG bu ANAT ay ndaw ay jigéen ak ay mag dox nag lu tollook waxtu ak fanweeri simili loole nag ngir waat cofeel ak mbégte gi nga xamante ni am nañ ko ci ki nga xamante ni moo di directeur général de l'aménagement national du territoire noonee nag du Bari ak ñi mu àndal kenn ku ci nekk ci ñoom di yëkkati kàddu di tàllal loxo président de la république Macky Sall ngir mu investir ki nga xamante ne moom moo di Mamadou Djigo loolee nag ngir ñu mën a am victoire bu rëy bu Benno Bokk Yaakaar fii ci Koungheul. kon monsieur le président monsieur le président investiral ñu sunu Mamadou bii investiral ñu sunu Mamadou bii Mamadou bii boo ko investiré dana la gañeel sa commune bi. jël commune bi teg ci sa loxo monsieur président investir nañu sunu Mamadou bii kii lañ yaakaar ne tey boo ñu ko investir dana la gañal commune bi dana la gañal département bi. tey bu yàlla dimbalee ba mu gis lii soxlawuñ ci moom dara bugguñ ci moom dara nañu dimbale ngir yàlla ak yenent bi fi sabilillahi wa rasulihi mu investir ni directeur ANAT monsieur Mamadou Djigo mom kessé lañ soxla soxla wu lenen soobee yàlla loolu boko defé insha allah rabbi dana ko jàppale ku munta xëccol fi ci bir kungel mom insha allah rabbi dana ko duma dana ko dóor dana ko dan ze attaque ze ko Ginau nak bi mu jëlee kaddu gi moom mi nga xamante ni dañ ko xam bu baax eh, ci social xam ko bu baax nag ci mën a yiir ak yor askan wi moom Mamadou jigo ma ngay xamle nag yéene gi mu am ngir mu ko ngal waaye nag fexe ba mu nekk dëkk bu tolloo ak jamono te it dëkk boo xamante ni développement wam day jëm kanam. defar acte trois de la décentralisation bi li nekkoon ci ginnaaw moom lay wax liñ naan des territoires viables.

noonee sax mu daal président de la république makisale Sall Binga bi nga région bu Kaffrine ba mu gëna